gan gi tey di Abdou Karim Diakhaté géopolitique euh, ñu koy nuyu euh, monsieur Diakhaté Abdou Karim jaxate ñu ngi lay nuyu. ah maa ngi lay fay Elisabeth. Mhm. ñu waxtaanee la xew ca Guinée gannaaw nag waxtaan gi nga xam ne euh, ay chef d'État africain amal nañ ko ci kuréelu CEDEAO ñoom nag message bi ñu joxe dafa mel ni dafa dafa ferme ndax li ñu jox comme sanction Guinée nee nañu na ca dal wala donc li ni mel duñ koy yëkkati nan nga jàngatee justement euh, message boobu nga xam ne euh, moom nga liir à travers sanction bi ñu euh, def démb. waaw dëgg la démb bi chef d'état wu CEDEAO yi tase fële Accra ci Ghana. Mm-hmm. dañu dellu si waat ci situation Guinée xam nga ñoom Guinée déjà suspendre nañ ko semaine bi passée bi coup d'état bi ñu def président Alpha Condé amee ba noppi. Mm-hmm. di wax ne loolu dafa méngoowul ak dafa àndul ak charte bi ñu naan charte sur la démocratie et la gouvernance Euh, démb nag il fallait que chef d'état yi wane ne ñoom ànduñu ci coup d'état yi am euh, ci sous-région bi comme yi xewoon ci mal Mali mhm. ci temps yi passé euh, waaye man nag lu ma ci gën a jàpp rek mooy c'est vrai jël nañu yenn mesure ah suspendre nañu Guinée ci CEDEAO yëpp mais li ma gën a jàpp daal mooy li ñu wax ne bëgg nañu ay élection présidentielle ak élection u député yi am mhm. fileeg juróom benn weer mhm. loolu nag ma jàpp ne dafa nekk lu gàtt lool lool lool lool lu mhm. gàtt lool parce que charte transition bi ñuy taxawlu guñ ko ñoom ñi ngi waxtaan ak opposition bi di waxtaan ak force vive yi donc délai bi ñu leen wax ne moom lañ leen may pour que ñu euh, fexe ba ordre constitutionnel bi dellu si waat pour man daal jàpp naa ne gàtt na. Mhm. Euh, bu weesoo euh, délai bi gis nañu yeneen i sanctions yi bokk na ci gel des avoirs financiers ak yeneen yi ci yi ni mel yu mel ni interdiction de voyager tey jàpp nga ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo nekk ci junte bi dinañu. def li nga xam ne moom la leen CEDEAO wax. waaw xam nga nag CEDEAO euh, wala ay Union africaine en tout cas organisme yu mag yi. bu ñu mm. jëlee ay mesure contre dëkk. day xaw a metti ñu euh, dëkk bi mun a def leneen lu dul jëm ci euh, dem waaye nag lii nii. Mm-hmm. gëmu ma ne junte bi CNRD bu Guinée dina ko nangu parce que aussi situation bi am responsabilité wu CEDEAO ak bu Union africaine génn ci. Mhm. parce que balaa président Conté doon toog bay euh, tripatouiller maanaam di laal di salfaañe constitution bi ba forcé def troisième mandat lii am am ci. Mhm. ñoom dañu toogoon enfin taxawuñ ci woon taxawaay bu dëgër lool. Mhm. Euh, c'est vrai que condamné woon nañu euh, processus électoral bi ni que président Conté ak ñoñam yi doon dafee waaye bi mu demee ba forcé ba élection référendum bi am en mars deux mille vingt élection législative yi am ba ci présidentielle bi mu gagné. Mhm. a ah, ñoom dañu seetaanoon léegi nag li am ni euh, waa pratiquement opposition bi ñëpp ànd ànd ci di mhm. waxtaan ak euh, ñiy toog actuellement ci pouvoir bi day firnde ne lu lu peuple guinéen bi d'accord la booy seet. Mhm. parce que gisuñu véritablement benn opposition bu mag par rapport ak lii ci am. maintenant euh, CEDEAO nag bu jëlee ay mesures. waxtaan moo ci man am man nag dama dégg démb général Sékouba Konaté nga xam ne moom euh, moo doon jiite transition bi mujj bi en deux mille dix après Dadis Camara mhm. wax na ne il faut ñu may gars yi daal au moins délai wu trois ba cinq ans sax loolu sax xëy na bëri na mais man jàpp naa ne daal lu bon bon at wala at genn wala baax na pour que ñu delloo delloosiwaat Guinée ci yoon bu boobaa ñu def ay Euh, en tout cas te euh, kayit yu leer position beeg ñëpp ànd ci xoolaat processus électoral yi bala balaa ñuy mën a dugg ci loo xam ne ëllëg buñ ci taxawul li am ni mooy amaat rek. mu mel ni dañuy euh, teewe jamono ji benn bras de fer bi nga xam ne door na gannaaw sanction yi ak junte militaire bi ndax lan lañ mën a xaarandi ëllëgu ñoom ñaar seen rapport. waaw réeroo diggante CEDEAO ak junte bi mun na sax mun na sax ñàkk ah, mun na bañ a am. Hmm. ci kaw rek waa CEDEAO benn exigence pour man daal li ñu war a gën a jàpp mooy nu ñu fexee ba euh, libérer Alpha Condé maanaam libéré bi mooy ñu fexeel ko jox ko condition sécurité yoo xam ne dinañ mën a garantir en tout cas li ñu naan intégrité physique am ñi bañ ko laal waaye nag. fiñ toll nii ñu bëree ci Guinée ñu ngi wax ne Alpha Condé waruñu ko bàyyi mu génn hmm. bien que sax dégg na am na ay chef d'état yu proposé pour ñu ñu jox leen ko mu toog hmm. fa hmm. nga xam ne du mun a nekk benn menace pour réew ma waaye nag loolu dafay xaw a doy parce que fu mu ne nii comme ñu ngi wax ay mbiru audit la ñuy xool xool ñaawteef yi fa am wala laaj nañu dirigeant yi fa nekkoon nañu joxe seeni oto ñi ngi xool yenn compte yi ay immeuble wala ay biens yoo xam ne jàpp nañ ne ci nguuru Alpha Condé yu ci bëre la amee gëmuma ne tout de wu CEDEAO nañ dem waxtaan ak ñi li ñu may waa Mali wala Tchad ñu may leen ko nangul leen benn délai bu bu normal. Hmm. pour que lépp delluwaat ci yoon. d'autant plus que maa ngi koy wax sànq ci nasaraan bi français euh, kii yi euh, euh, premier ministre Mali bi. Hmm. Sokala Maïga moom dafa exiger ne. fu mu toll nii ñoom waxuñu waxuñu ay waxi élection réforme yi la ñuy njëkk daf pour que dëkk bi tegu ci yoon donc pour Guinée également nga xam ne lii bi muy am ak léegi matul sax euh, fukki fan ak juróom. Mhm. nañu bàyyi ñoom ñëpp ñu gisee seen biir waxtaan waxtaan boo xam ne Guinée yëpp ci ànd une fois nag ñu jël ay décisions yoo xam ne dinañ taxawalaatal dëkk bi ci yoon ba lii amoon bañ a amaat. bu mhm. boobu dinañ mun a véritablement kii leen waaye bu ñu leen suspendre léegi rek daf ay suspension économique loolu nit ñee ci sonn. ñi ñoo ci sonn parce que Guinée dafa am ci tolof tolof yu bëri yu mu génn amoon na déjà problème économique yi Covid bi ñëw tegu si. Mm-hmm. ñu fermé woon frontières yi ah ba démb rek foog naa wala ba lañ leen di ko soog a ibbi donc yooyu yëpp war na mën a tax waa CEDEAO am daal nu ñuy xoolee euh, junte bi fexe daal ba ñoom lu ñu garantir ne ordre constitutionnel bi dina dellu si waat rapidement d' accord mm-hmm. exigence bu mën a comprendre la waaye bu ñu leen aussi teg fitna boo xam ne ëllëg. Euh, lii bu jógee bu ñu ci jógee ñeneen dañuy ñëwaat rek daf li ñuy def. Mhm. Euh, tey euh, comme ni nga ko waxee seen mbébét mooy ñu bàyyi Alpha de ñoom dinañu wutali ñi nga xam ne ñoom la CEDEAO yebal bokk na ci Nana Akufo moo koy jiite sax ñoom li ñuy exiger mooy libération bi comme ni nga ko waxee waaye jàpp nga ne li ni mel dina antu. ah dina jafe dina jafe lool parce que loolu moom bu ko jeune bi nangoo day mel ni rek daanaka. Euh, même si sax ah dégg naa benn président bu joxe ay garantie ne moom une fois mu dem dëkkam kooku président Sassou Nguesso wax na ne moom bu ñu nangoo mu ñëw Brazzaville dina fexe ba euh, déjà dina fa nekk te du doon menace pour jeune bi waaye na xam nga président boo xam ne dafa nekkoon en exercice. mu mhm. fiy jógee ñiy wax naan dañu war a liñ bët dañu war a xool gestion am nu mu demee. Mhm. am ñu bëri ñu ngi ciy tuumaal nga bàyyi ko moom mu dem. Mhm. te ëllëg ñenn ñaa ngi wax sax naan moom war nañ ko woo de la justice. bu aussi bien bu devant cour pénale internationale te xëy na mhm. loolu sax lu doon lu rafet sax pour deru Afrique mhm. waaye nag fu ñu toll nii nii je crois que lu ñu war a laaj rek mooy que ne moom nañu fexe ba euh, teg ko ci condition yoo xam ne du ñu ko lor du ñu am dara luñ koy teg ci lu metti waaye nag ñi toog bàyyi fa mu xool daal ni ñuy régler situation bi d'autant plus que maa ngi dégg ñu ne dafa doon bañ signé démission am waaye nag moom accepté na le fait que ne euh, coup d'état bi am na parce que ñi ànd ak moom sax dam nañu bokk ci waxtaan yi am ak waa CNRD bi Mhm. démb euh, ñoom ba ñuy amal ca Accra seen ndaje foofa ca Mali Conakry euh, ñoo ngi fay amal ñetteel euh, ci journée concertation yi nga xam ne junte bi door na ko waxtaanee donc seen ëllëgu réew mi bokk na ci ñi ci maanaam ñi ñi fa teewe woon bëri nañu mu mel ni guinéens yi tey faale ñu benn yoon critique yi nga xam ne moom moo am ci institution sous régionale yi waaye tamit internationales yi waaw xam nga Guinée nag wax dëgg yàlla depuis at a ngi nii ak lu teg sax ci depuis sax ñaari at booy xool. Uh, bi Alpha Condé manifesté kii wam ne dafay dafay bokkaat ci ci dafay def troisième mandat gis nañ taxawaayu yenn parti politique yi ku mel ne UFDG mm. gis nañu aussi Fonds national de défense de la constitution bi taxawam di xeex bës bu ne nga xam ne ñu bëree faatu nañ ci yooyu yëpp amoon na fi CEDEAO nag wax dëgg yàlla taxawaay bi mu ci waroon daf dafa des ñoom bien que ànduñu woon ci processus électoral bi ni ko Alpha Condé taxawale moom ak OIF mi sax def aussi moom it beneen beneen euh, kii di di ŋàññi li hmm. waaye dañuy seetaan li lii am na moo tax Guinée yu bëri dañ jàpp ne sax CEDEAO waruñu leen déglu waaye nag xam nga Guinée dafa bokk yeneen dëkk euh, CEDEAO bi munu ci munu ci wéet parce que sanction yi biñ ko defee dina metti te dina métti surtout pour population guinéenne yi comme ni mu la ko waxee coono bu mbëri moo fa nekk Covid bi tegu ceeg leneen ak leneen su frontière yu fermé wu te léegi ñoom ñi ngi yaakaar ne ak lii am nii xëy na dina amaat yeneen perspective yu neex. Mm. waaye nag buñ ci bëggee tegaat yeneen sanction day metti moo tax nag Guinée yu bëri am benn position. bu ñu taxaw à l'égard la CEDEAO waaye nag nañu jàpp ne Guinée mënul génn ci CEDEAO nañu fexee rek ba waxtaane ko li ñu may waa Maliens yi ñi discuter entre pour xool bien que sax CEDEAO nee nañu waa Mali coûte que coûte seen élection yi nañ ko def février mais lii ñu bëgg wax Guinéens yi nañu def seen élection yi fii ak mois mooy fii mois de mars. Mm. kooku moom lool lu mënul nekk mënul nekk moom moom bu chef d'état yi xam naa demee junte bi ak euh, force G dinañ leen exposer situation boo xam ne ñoom dinañ ko war a comprendre. Alpha Condé moom fa mu jàppoon ba tey moo nga fa nee na du démissionné ndax li ni mel euh, dina gàllankoor transition bi nga xam ne euh, junte bi mu ngi koy jéem. waaw président Alpha Condé nag man de yaakaar naa ak dayoom ak vraiment rôle bi mu joué woon ci Guinée ci démocratie be taxawal ko ba yàlla daf mu ñëw au pouvoir en deux mille dix li ci am am ci yëpp xëy na mu dam ba ay dérive am ci ba léegi fu mu toll nii euh, jàpp nañ ne presque raté na li ñu naan raté na sa sorti maanaam génneen bi du génn gu rafet euh, gëm naa ne quand même ci euh, xelam dina dellu si mu jàpp ne daal comme guur gi moom déjà ñàkk na ko parce que lu la koy wan ñi àndoon ak moom ñëpp dam nañu di waxtaan ak gent bu bees bi par conséquent warul continuer ci di persister ci position boobu. waaye nag loo gis rek ay waxtaan la xam naa daf koy daf di ut li ñuy assurer sa sécurité ëllëg waaye leer na ne gisante bi ñoom tam nañu ba ne bu bu amee intransigence bu ci am maanaam bu dëgëree ci ay position mun nañ ko yóbbu suba devant la justice au moins la justice guinéenne wala ay cour pénale internationale te loolu du doon fi lu rafet ci deru Afrique. ni nga xamee Condé euh, gis nañ ne rapport de force lu ko neex la ndax jàpp nga ne moom euh, dinañ ci dal. waaw waaw jàpp na gëm naa ko man yaakaar naa ne fii ñaari fan ñetti fan dinañ ci ndox dinañ ci def ndox mu sedd parce que aussi euh, moom intérêt gu la war a jiital parce que leer na leen ne coup d'état moom kenn àndu ci waaye loo xam ne dem nañu ba ay rencontre ay waxtaan am ci diggante opposition bi diggante force vive yi maanaam ah partem dégguloo leen fenn der sax ñoom dem nañu di nekk ci waxtaan yi par conséquent ah, li am am na li ñu naan rek euh, euh, mbir mi féete na boor maintenant nag euh, bon na nellu si à la raison d'autant plus que aussi mag la waaye xool daal yan condition la ñuy mën ba assurer sécurité am et puis maintenant li des nag mu jàpp ne Guinée dafa war a continuer. Mhm. Euh, ci benn simili euh, sa jàngat euh, ci coalition yu bëri yi ñu gis rawatina ci opposition bi tey ji kan moo ci nar a profité. waaw euh, situation politique bi Sénégal nag ak euh, euh, coalition yi bari am mais du lu du lu bona lu baax la booy xool parce que loolu dafay wane ne démocratie bi mi ngi mi ngi avancé parce que bon xëy na peut-être pour opposition bi ñëpp àndoon mooy gën mais loolu mënul am fenn amul hmm. fenn foo xam ne ñëpp ñëpp ñooy ànd mànkoo ci dara d'autant plus que sax élection yi ñuy dem ni ay élection locale la te ku ne élection locale mu wax ne euh, au niveau de la base ci communauté yeeg communes yeeg euh, collectivité locales yi nit ñi ñooy décider au niveau de la base kan la ñuy jiital maintenant nag parti politique yi mën a ànd nañu ànd bu ko defee nag combat yi ñuy mëne na nekk ay combat de principe ñu juboo ci dara ànd ci di koy di koy xeexandoo. Mm-hmm. mais bañ a di ŋàññante seen biir amul benn solo maintenant bu ñu euh, réeroo mais kooku parti au pouvoir bi majorité bi lay arrangé. Mm-hmm. Euh, coalition au pouvoir benn bokk yaakaar tant plus que euh, problème yi ngay gis ci opposition bi nii di nga ko gis même au niveau de coalition bu mm-hmm. mag bi parce que ñoom aussi li li dal opposition bi moo leen di dal parce que élection locale bokk ak élection législative wala élection présidentielle gox gu ci nekk ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar ne ñoo fa am baat ñoom la ñu war a jiital loolu nag dina nekk ay difficulté pour coalition yi ak pour parti yi euh, àndandoo juboo ci kenn koo xam ne moom la ñuy moom la ñuy tabb bu ko defee maintenant euh, ñoom ñu mun a am li ñu bëgg au plan politique. Abdou Karim Diakhaté ah. géopolitique ñu lay jaajëfal bu baax a baax. voilà jërëjëf eh Elisabeth.